bés bii ak li ko waral ak li mu ëmb ci njàqare ak tiitaange ci njaboot gu ñu séq ci diggante ñaari wayjur ñun jigéen ñi am nañ ci responsabilité bu rëy rëy tey nag am na mbégte lool ci gis ne jigéen ñi woo wuyu nañu woote collectif bi ci bés bi ñu tuddee xeex mbon gi ñun nag dañu di ay jigéen di ay yaay di ay soxna may faral di wax ne ñun lu yàqu ñun la yàqul ndax bu góor yàqoo ñooy soxnaam bu ndaw yàqoo ñooy yaayam ñooy bàjjanam kon lu yàqu ñun la yàqu waaye dafa am nattukaay yoo xam ne ci lañ mën a natt jigéen ndax xam kii mat na ndey dëgg-dëgg ju mën a fare doomam fi ko war a fare walla déet nattukaay bi njëkk ndey war na nekk ku ommatu ci yoon te ommatu ci njub mooy ommatu ci siraatal mustaqim ndax ak njub moo lalal mbooleem jikko yu rafet kon yaay war na nekk ko ommatu moom mi nga xam ne dafa war a te yaay war na nekk ku defarul moom mi nga xam ne war na defaru yaay war na ne ko ku fas ku am pas-pas ndax soo dee yaay te nga fas nga gëm nga am ngëm-ngëm doo xoolal sa doom succès àdduna walla koom dangay xoolal sa doom lu tax mu mucc ci àdduna waaye bu ëllëgee buñ ko defee ci bàmmeel du fa ak mbugalu suñu boroom tabaraka wa taala foofu la yaay di war a xoolal doomam kon yaay dafa war a am pas-pas waaye yaay dafa war a xam yaay jamono waru ko raw war na dégg jamonoom bu baax a baax a baax ak fiir ak ndëgg sërëx yi nga xam ne mi ngi xaar doomam te loolu ñun amoon nañu yaay yu ko mat ndax war nañu di jàngat ban taxawaay la maam Fawade Wele amoon ba indil ñu Seydi Hadji Malick war nañoo xam ban taxawaay la maam Jaaratullaahi Buso amoon ba indil ñu Cheikhul Khadim yaay ji nga xam ne bi doomam tolloo ci ñeent ak i juróomi at la koy wax ne inna min dex dax bi saalixiin xiyaamal layl kon yaay bi nga xam ne mu ngi xemmam loo doomam gaa yu baax yi lan moo leen mayoon ngërëm ci seen boroom wute na ak yaay yi nga xam ne tey li tàbbal seen doom safara dañ ciy sonn guddi di ci sonn bëccëg bu fekkee nag yaay mel na nii te am taxawaay bii ci doomam ci jàngal ko ak waajal ko ci jikko yu rafet ak dajal ko ak baaraami xelam ngëmam dajloo ko boroomam mu xam ne moom ak yaayam ak waajuram dañoo am ku leen moom te mooy suñu boroom tabaaraka wa taala bu yaay defee waajtaay boobu ba pare dafay jox nag penc bi ndax xale bi kenn du ko tëj ci kër ñun nag suñu doom yi bu leen seen yaay waajale ci ngëm ak makaarimal axlaax ba jox leen société bi ñun suñuy école ñun fii ci senegal lan mooy xaar suñu doom ña nga yor seen yàmba ca école ba di xaar xale bi ña nga yor seeni mbuusi sàngara yoo xam ne ay mbuusi fukki dërëm ak i mbuusi juróomi dërëm lañ koy def loolu mu ngi xaar xale yi suñu école suñu école mi ngi xaar suñuy ndaw ak njàngale mi nga xam ne buñ ci paree ci moom ba delloo la ko yow waajur bi waajaloon sa doom doom jooju dootoo ko xàmmee ci diineem dootoo ko xàmmee ci aadaam doo ko xàmmee ci cosaanam kon lii mooy liggéeyu suñu école ngeen gis ne léegi Imam Makhtar mi ngi àddu ci xale yi ci affiche bii ci seen kanam kon ñun dañoo yor njaboot bëgg tàggat seen ruux yi jox ko suñu boroom waaye ñu am nag ñu taxaw jàkkaarloog ñun yor ay moyens yu doy te dogu lool damay faral di dégg naa Omar muy wax ne addu kalpe bi lim ko jaral bu ko jaralee borom kalpe bi kalpe bi du dem ñu am ku mel ni tey maam jaara bi nga xam ne moom moo gañe woon seen Petit ñu defal ko promotion ba génn ko butim réew boole ko ak ay nasaraan maam jaara boobu futtee ko ba set ba làmmiñ wu kersawu du tudd na mu mujj bindoo ñu boole ko muy wër àdduna ak i ci melokaan boobu biñ ko laajee sax ne ko ndax yow xam nga maam jaara bi nga xam ne moom moo gañe woon concours alxuraan nekk champion alxuraan dafa wax ne kooku loolu mooy chance am waaye man lii mooy sama chance biñ ko waxee ne ko ndax sa tur wi doo ko war ma dafa wax ne déedéet man daal maam jaara laa tudd ngeen gis kooku li leen naqari ci moom mooy maam jaara bi nga xam ne gagné na concours alxuraan loolu moo tax ñu dellu ku tudd maam jaara def ko li may wax ne dañu dañu dañu jot ak xale boobu la perfection dans la perversion loolu ñun ñëpp ñoo ko gisandoo ngeen gis xale bi ñuy wax Ngaaka Blindé xam naa jigéen ji nga xam ne moom la def nii moom de wax dëgg doyadal nañu moom de tàngal na xolu bépp jigéen bu yi waaye loolu dafay ay jëmm yoo xam ne dañoo dee seen yëg-yëg yi dee na seen xol yi dee na amatul dara lu dund ci seen jëmm yi ñu nekk ñoo xam ne iblis tàggat na seen bakken yi wulli ko ba mu nooy nepp ñu di ko jaamu ci ni mu ko bëggee kon ñooñu daanaka yërmande rek la mujj jëmale ci ñooñu tey ngay dégg lu nekk am na ku jóg di fecc pecc ma muy fecc mu tudd ko lëmbalu vampire am na koo xam ne dañuy fecc ñii di wax na góore ñii di wax na dëmme may laaj bokk yi ndax ñi faruñu jëfuur ndax ñi faruñu jëfuur te aajawoo cuuraay lu rëy te cuuraay loolu mooy yëg-yëgu ahlul quraanul karim ñu jàngal ñu ay muslaay ci ñi nga xam ne ñoom de wax dëgg yàlla ay taalibi iblis la ñu yoo xam ne ñu ko déggal te di ko taxawal moo ne de am na fi ay xale yu mel ni Abdul Karim Gueye xurum xaq moom de dafa julli ba jëbe am màndarga alxemes bu nekk ak altine daf koy woor te taxawaayam yépp mooy jële xale yi ci lëndëm indi leen ci leer ak lu leen di jariñ kon mbokk yi ndax xale bu la yàlla mayee sa génération wuyu la ubbil la seeni xol ndax lëndëm nga ciy sol wala leer nga ciy sol ndax dangay mel ni waali nga pare pour xol yi la bëgg nga dëmm leen def ci ñoom lëndëm def ci ñoom rëbbum suñu boroom wala dangay mel ni Abdul Karim di def leer ci xolu sa fan yi la bëgg am na benn soxna bu yëkkati ay kàddu yu junnu jëme ko ci imaam yi man duma tudd turam te it mënuma koo bañ a wax ne soxna ndax suñu diine moo ñu jàngalul ñuy sàllalu nit waaye na xam ne démb day maa ngi koy wax euh, imaam Babacar Mbuub ne moo ndax bu imaam yi xëyoon grève ne fekk ñett wala ñeenti weer dootuñu takk sëy de ñun dootuñu tudd kenn ñun dootuñu léemoo nopp benn liir dootuñu jiite kenn waaw kon day moom moomu di wax loolu dafa réere aji ku réer la ku ku ku mat yërëm la kon fi may daaneel sama kàddu mooy may wax ak samay don ndax ñun ay ndey rekk lañu yoo xam ne cofeel moo nekk suñu xel benn xale bu yàqu bu ne ak lajj la ci suñu taxawaay ñun ñi kon na xale yi xam ne kenn laa ci seen yaay yoo xam ne su ma xamoon ne ñii ñépp ñu lim su ma joxee sama bakkan bi ñu tënkuwaat ci siraatal mustaqim kon dinaa ko def lii imaam wax léegi ne bala ma tàbbi ci collectif bii demoon naa ba bëggatuma dund ndax dama xamatuloon fan lañ war a jëm bi ma tàgg tàbbee ci seen biir mën a ànd ak ñoom di yëg ne maa ngi dox ay jéego ci lu sauver sunu njaboot gi ci laa soog a nekk nit ci laa soog a dal kon xale yi ndax da di wuyu woote seen mag yu baax yu tedd yii xalal leen yoon wu jëm ci seen borom yoonu njub wala ndax dangeen di jàmmaarloog ñoom ndax ay Wally ndax ay Ngaaka Blindé ndax ay ndaw yoo xam ne tey jii bi ñu taxawee war a jëmal reconstruction fan ngeen di fare tey bi ñu war a taxaw dafa beneen senegale boo xam ne dafay dund ànd ak ngëmam fan ngeen di fare ndax dangeen ngeen di fare ci ñi defar wala dangeen ngeen di fare ci ñi yàq am na tey jii ministère bu ñuy wax ministère du genre lii lépp ngeen dégg ñu jëmmal ko ci ak mbon ñoo ko uuf te ministère boobu jigéeni jullit moo ko jiite te ay jullit ñoo cay xëy di ca gont may laaj mbokk yi luy jaral nit mu war askanam war yu toll nii ci di ratifier ay convention yoo xam ne tuut sañ la cay jox ngir nga toog ci nguur xam nga ne luy yàq sa askanam luy yàq say ndaw la lan mooy war a jaral njiit mu nangu loolu tey jii bépp jigéen war na taxaw ci xeex ba ministère boobu jóg fi ba ministère boobu jóg fi ndax bu demee ba état ak askan bi ko fal mu jëmel ni askanu senegal yaram mu jàkka la am waaye ci bopp biñ ko mbaaral puju puj bi ci kaw biñ ko mbaaral moom baar la li mooy suñu nation élite boo xam ne dañu nekk en déphasage ak ñi leen fal loolu moo waral biñ fi jàmmarloo ak franc yi Grand Orient de France di ñu tëkku di wax ne taarix dafa dër jàmmarloo woon nañ ak seeni maam tamana luñ ñu dara ndax saa su nekk dañuy defe ne njiit yu ñàkk jom yi ñu jiite askanu senegal noonu la mel waaye ñu réer lañ askan bi bokkuñu ak ñi leen jiite ñooñu dañoo mel ni ñu génn ci seen xel kon maa ngi sant di gërëm di wax ne njaqare gii ñu am ci suñu njaboot gii ñu ngi koy diis ahlul quran ñu ngi koy diis kilifa diine yi ndax ñu ñuy jàmmar lool day ñoom dañoo am ndey dañoo am ndey lool bañ tegee waali ne ko déet rek fu nekk ay sargal jóge na fa ne ko bu ragal dara kon kilifa diine yi nañu xam ne ñoom ñooy suñu ndey ñooy suñu wéeruwaay te taxawaay bii sàmm seen ndonoy maam yi moo tax ñu di ci xëy di ci gont di leen gërëm di leen sant di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu